léeg-léeg dañuy dox ci ay tànk yoo xamante ne ñi nekk seen ginnaaw bokk ci parti bi duñ ko yëg et ça c'est quelque chose boo xamante war nañu ko xoolaat ci li nga xamante moom mooy les partis politiques toute décision que tu prends pour moi sans moi tu le prends contre moi ça c'est vrai mais et ça c'est quelque chose boo xamante ne war nañu ko xoolaat beneen fi may jeexale mooy jamono ji ci biir réew bu Sénégal dafa am beneen donne politique bu ñëw et ça je pense que di d'accord ak mm-hmm. politique là il faut dañ ko tabax ci biir réew bu Sénégal de 2014 à mm. et ñi nga xamante ni ñoom ñooy les fondateurs yi nga xam ñoom ñooy les initiateurs de cette donne là mm. il faut le ce sont des personnes yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci régime bi tey mm. muy Ousmane Sonko muy Bassirou Diomaye muy ñi nga xam ne ñoom la àndal mm-hmm. ak ñi nga xam moom mooy le parti Pastef ak ñi mu allié ci en pour élection présidentielle ñu mën cee yegsi mm-hmm. donc cette donne politique là est-ce que au parti socialiste c'est un ou taxaw xoolaat naka la ñuy def ba tabaxaat une autre manière de politique mhm. est-ce que les deux questions yi nga xamante ne moom lañ ko def deux deux deux deux deux deux mbir la yoo xamante ne war nañ ko taxaw xoolaat mhm. soit c'est retourner au parti socialiste pour retrouver ses frères et sœurs socialistes mhm. soit c'est se tenir debout réfléchir pour proposer au Sénégalais une nouvelle donne politique c'est deux hypothèses yoo xamante ne mën nañ ci xalaat. waaw loolu mën nañ ci xalaat pour man ñoom mën nañ ci xalaat mais man personnellement man li ma gis jàpp naa ni retourner al parti socialiste peut-être mën na am ñoo xam ne dinañ ci d'accord comprendre nga xoolaat tax taxaw xoolaat taxawaayam am na ñoo xam ne mën nañ ci d'accord mais man sama gis-gisu bopp mooy vraiment li ko mayoon li mu amoon parce que mag ñi dañ daan wax naan li nga jàppoon ba mel nii bu ko bàyyeeti loolu jig na la parce que man dama gis ni Khalifa am na benn yéeg bu am solo bu mu yéeg ci at yii passé am lu xew ci élection yi ñu mujjee jóge ci ni mu chutee donc loolu lan moo ko indi ak lan moo ko waral moom xam na ko ñi sëq parti bi xam nañ ko te li waral aussi tamit 25 membres yi génn ci parti bi moom xam na ko ñoom tamit xam nañ ko hmm. donc man j'espère bien que li am solo dëgg mooy mu recadré waat njabootam fexe ba nga xamante ne li nga xam ne moo fa indi woon njaboot googu muy gis-gisu politique bi nga xam ne man jàpp naa ne sama xalaat la mooy ñoom dañu gisoon nii le président Bassirou jomaay fay li euh, programme bi nga xam ne jor nañ ko ñu jaay ko askanu Sénégal askanu Sénégal jënd ko ci départ bi àndoon nañ ci ñu doon ci liggéey mu nekkoon yeewi askan bi mu nekkoon lu am solo loo xam ne Sénégal yëpp gisoon nañ ci seen bopp te loolu permettre na leen ñoom ñu jël ay plusieurs mairies comprendre nga kon dama jàpp ni kon delloo buy buum ca booy booy ba loolu wàññiwul dara pour man il faut ñu revenir aat xam ni ànd bi rafetoon na te am na lu mu leen jariñoon su tàqalikoo bi amee mais xoolal njeexital bi mu joxe mais loolu aussi tam pour man c'était pas que sax pour ay acquis personnel mais pour askanu Sénégal parce que dañu a nga xamante ne vraiment les partis politiques yi nga xam ni dañ fi nekk mat ay centaine de partis yoo xamante ne bari na ci ñoo xam ni amuñu cinq personnes yu leen topp chaque fois ñu naan ay alliés ay alliés yu dul jiix amuluñu nit ñi benn njariñ seen bopp lañu fi nekkal vraiment yooyu aussi tamit ñun en tant que ASCOSEN FC ñi ngi mu dimbali ñu ñu réorganiser waat bu baax a baax a baax euh, lanterne politique bi. en tout cas mooy ci li nga xamante moom mooy élection législative yi ñu dëgmal. Mhm. si bien sûr le président dissout de l'Assemblée nationale on verra euh, loo xamante ne sax xaaruñu ko woon. parce que li tax ma wax ko mooy. déjà boo leen xoolee eh, ci ci jamono ji Amadou Ba était parti à Thiès pour rencontrer sa Seck. bon nee nañu dafa demoon pour jaale ko d'accord mais est-ce que. bu ñu demee ba Idrissa Seck ak Amadou Ba retrouver waat encore une fois et jamono jëlee ñu génn encore une fois fàttaliku leen dafa am benn parti boo xamante ne euh, juddu na euh, maanaam coalition euh, les les les les démocrates liberté les les démocrates xaw ma nu nu ñu tuddee nu ñu tuddee mbir mi xaw ma xaw ma je sais pas xaw ma bunku lañ ko tuddee je sais pas maa ngi maa ngi fàtte certainement dina ñëwaat sama xel ñoom libéraux yi plus de 40 partis de mouvement retrouver waat nañu sauf le parti démocratique sénégalais donc le parti démocratique sénégalais c'est quoi sa démarche c'est quoi sa vision c'est quoi sa logique ci li nga xam ne mooy eh, avenir mais bu fekkente ne réew mi retrouvé wu na ak Amadou Ba ñu fondé waat encore une fois benn coalition Khalifa Sall et le Parti socialiste je pense que ça sera une coalition boo xamante ne mën na def face aux autres et encore une fois ça posera encore une fois des problèmes ci chance yi nga xamante ne xëy na Euh, coalition bi fi nekk ci li nga xam moom mooy réew ji ji nga xam moom mooy la tête du pays muy la coalition Diomaye président pour ñu am majorité ci assemblée nationale parce que deal bi loolu la. deal bi yëpp mooy kañ la. am na ci aussi trois partis yoo xam ne Lamine Senghor pour peut-être ñu dekkiwaat parce que actuellement. dégguñu leen fenn faaw ñu de AFP par exemple par exemple effectivement dem nekk fekk beneen parti nekk allié pour pour peut-être mën a mën a am. solo trop. Mhm. mais gis nga. li ñu bëri ñi ñee ngi koy yaakaar dañu jàpp ni peut-être comme les calculs politiques yi amoon. Mhm. bu Amadou Ba àndee ak Idrissa sec bu Ablaye Wade kii bu diw diw na gis nga loolu yëpp c'est bien beau. mais gis nga Sénégal toll na foo xam ni projet bi nga xamante ne tey moom la ñu jaay askanu Sénégal man jàpp naa ne askanu Sénégal dañ koo consommé bu baax a baax a baax ak 54 pour cent te li ma gëm mooy après bu ñu jël ni projet bi ba pare. 54 pour cent yooyu man jàpp naa ne am na leneen lu ci yokkuwaat. wala mu am lu ci wàññi. non non man gëwuma loolu am na lu ci yokkuwaat man jàpp naa ne am na lu ci yokkuwaat parce que aussi tamit quoi qu'on puisse dire ñoom li ñu jaayal askanu Sénégal bon wala boog li ñu jaayal askanu Sénégal gis naa ni am na lu ci bëri loo xamante ne mi ngi tegu ci yoon bi mi ngi ñëw par ndànk-ndànk te sénégalais li ñu bëgg mooy loo wax nga def ko kon man dama jàpp ni bés bu ñu tasoon assemblée nationale ñu demaat élection ma euh, actuellement régime bi fi nekk nii. dañuy amaat majorité man man man awma ci sax lu may sikki sàkk ci loolu. donc man pour man l'intérêt xam nga mooy lan man fi may xaare ak fi may woote mooy. Hmm. amul lu ñu njëriñ ñu tas ensemble national jël ay fonds pour demaat ay élection mu ñuy sonal. pour man li ñu ëppal solo dëggantaan mooy ñi fi nekk tey ensemble national bi fi nekk mu xam ni askanu Sénégal la fi nekkal. Hmm. mu xam ni président Bassirou Diomaye Faye ak président Ousmane Sonko par président euh, premier ñoom askanu Sénégal ñoo leen choisir dénk leen réew mi. nit nag bu ko ak askan choisir ba dénk ko réew mi yow askan choisir la dénk la assemblée nationale war nga mën a am retenir toog def xalaat ni kat vraiment ñii lañ mujj ñii lañ dénk réew mi naa fexe nu ma leen jàppalee pour ñu def seen ay réalisation ñoom leneen luñ def lu dul loolu vraiment dañuy war askanu Sénégal au niveau de l'Assemblée nationale pour man seen devoir ak seen sañ-sañ nañ ko jël focus ci ñii liñ fi teg lan la ak fan lañ bëgg a jëlee réew mi ñu fexeel accompagner pour la réalisation vraiment man foofu laa leen di xaar. très bien taxaw seetlu peut-être très rapidement rek ak euh, mbirum Lat parce que gis